saraax la ñuy def ci xew xew lamb tey fekk fa sunu lamb ma desandi ca coow la doon dox ca diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu ñoom sunu lamb la jukki tey mooy dogal ya tukkee ca CNG ci décision yi nga xam ne jël nañ ko ci bile situation CNG yàggalu ko yàqalu ko 24 heures la too ngir génne décision sanctionné ñam war a sanctionné le CNG sort le sabre à 24 heures après l'incident waa kër Alioune Seye 2 ak waa kër ñàkk jariñu ba ñu dóorante ay coup keroog ci arène ba pare CNG da leen a dajale daal di dóori coup moom it ñàkk jariñu ak écurie boobee atub teg ca taabal ja sanction ya nii la ko CNG jóge woon ca taabal ja di ko séddale mbëri ak écurie ya benn par benn ca ñaq la tàmbalee ne ko ñaq jëriñu mu ne présent ñu dóor ko atub lëmb tourné ca Aline Sey 2 ne ko Aline Sey mu ne présent ñu ne ko fëgg nañ la juróom benn weer ferme ñu tourné ca préparateur mystique ñaq jëriñu ba ñu ne aali ndaw ñu ne absent ñu ne interdit nañ ko enceinte bi à vie luy enceinte du tere nañ ko ko muy li ca dolli ba ngir faj ko ca booye boo na la bi ketal li ni mel nag ku ne mettiwul daf laa dalut aj la un ajaale sa écurie sa reliquat ku ne mettiwul daf laa dalut rax ca dolli moom Thierno Kane Aline Seye 2 moom it am na 6 mois koy xaar juróom benn weer yoo xam ne du bëre li ko CNG di toppe mooy même buñ ko sottee dara it war fajal boppam gannaaw ay superviseur

général Diouf général da ko woon boppam ci minutes 21 la général Diouf daan Jules Boussali bu dee ca Thiès alaaji gaynde dafa yóbbu building ca suuf ca 7 minutes alaaji gaynde ma ñu bëri jàppoon ne building moo koy déggloo muñal déjoué na pronostic ya moom dafa daan building taxaw ci 12 victoire fa ñuy jeexale mooy ca lutte simple ba galaa amoon le 6 ba le ca Marloj ordinateur moo ko jël moom ordinateur Ali Mbaye Fall di Pakala Junior ëllëg incha allah